ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله jëlee nañ ci suñu sang bu ñuy dàkkantelee baayu abdullahi uthman bni abil aas mooy turam radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa mosa tawatal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wajacan yajiduhu fi jasadihi mettit wum amoon ci yaramam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yonentu ne ko da yadaka ala alladi taallama min jasadika tegal sa loxo fi métti ci sa yaram waqul nga teg ca bismillahi halaatan nga wax bismillah ñetti yoon waqul nga teg ca sabaa marratin juróom-ñaari yoon acuudu biizzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadir acuudu dana ma muslu acuudu dana ma laqu biizzati llahi ci puissance yàlla ci kattanam ci dooleem bi izzatillaahi ci doole yàlla wa qudratihi ak kattanam min charri ma ajidu ci xayu li may ci sama yaram wa uxaadiru te di ko ragal ak wattandiku rawaahu muslim xadis ji muslim a solo bu ci riwaayatu imaam malik ci muwattaam mu jëlee ci yazid bin xusayfa yazid ibn xusayfa mu ne amr bin abdillah bin kaab assalami wax na ko ne naafic bin jubair wax na ko ne uthman bin abil aas wax na ne ataa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dafa dëkkal dafa ñëwal bés yonent bi qaala uthman uthman mu ne wa bi wajaun ka te booba métti tëng ci sama yaram woo xam ne qad kaada yuhliku nii xaw na maa halak qaala mu ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonentu ne ma imsaxhu bi yaminika fii métti raay kook sa loxo ndeyjoor sabaa marratin juróom ñaari yoon wa qul nga ne acuudu dana ma muslu bi izzatillahi ci doole yàlla puissance am wa qudratihi ak pouvoir kattanam min charri ma ajidu ci ayu lima jot ayu limay yëg ci sama yaram qaala mu ne fa qultu dhalika ma wax loolu yonentu sallallahu alayhi sant ma fa ci saase rek adhaba allahu yàlla deme maa kaana la nekkoon bii ci man li ma doon métti yëpp dem mu ne falam azal mosuma dëñ amuru biha di digal loolu ahli sama ñooñ wa gayrahum ak ñu sama ñooñ maanaam daal garab la goo xam ne yonantu moo ma ko joxoon ma gis ci njëriñ moo tax it ma koy digal sama waa kër ak ñeneen ñu dul sama waa kër bu ngeen xoolee ñaari riwaaye da ngeen gis ak wuute gu woyof ci baat yi waaye boo bëggee lu gën a matale jëlal ci muslim bi ndax wa xaadir gam ca yokk amul ci riwaayatu imam malik bismillahi ga ca nekk it amul ci riwaayatu imam malik te yëpp wér kon nag foo jaaxleeti rek ci mettitu yaram yonentu nee na tegal sa loxo ndeyjoor boobu moo am ci riwaaya malik moo gën a matale ci wàllu googu ci fii métti nga daal di jàng bismillahi ñetti yoon jàng ñaan gi juróom ñaari yoon audu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu aw xaadir audu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa yal na yàlla faj ci anam ak wér ku feebar